ibrahim ibn adham ku baax la ku siiw neena won li ëpp ci góor yàlla yi nekkoon ci jibaalil ubnaan àndoon na maag ñoom di leen dongawu def leen sëriñ waaye ñoom ñëpp imran dénk naa ma boo delloo ca waa àdduna ci xamal leen yett yi yett yi mooy bari la lekk am mukk bànnee xub jaamu yàlla faaw rek néewlu lekk mooy tax mu am bànnee xub jaamu yàlla ñaareel ba ku bari nelaw ak dundam du barkeel ñetteel ba mooy ku wut ngërëmal nit ñi doo am ngërëmal yàlla